لا إله إلا الله إلا الله rahmatullahi wa barakatuhu ngi leen di nuyu di leen di leen balu akad leen balak ak ñaan suñu borom boole ñu bal di jiital ñaanal saahibul fadila Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu borom yokk aw fanam ak wéram gannaaw loolu ni ñu ko gisee ndigal li nga xam ne Serigne bi joxe na Cheikh Mouhamadul Muntaqa ndigal li nga xam Serigne bi joxe na Cheikh Muntaqa al khalifatul am Euh, ci tey jii ñu def ko bésub tuubal suñu borom balontey ak sàkk sarax jàng alquran mbooloo mi macha allahu fii ci Touba tàmbalee nañ ko ci jumaa ji nii ngeen ko gisee ci soo ba léegi mbooloo mi ngi ñëw biir jumaa ji fees na sàmmonte na ak ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi diglee woon muy toogaay yi di ko yaatal te takk ay masque balaa kenn duggit mu jëfandikoo mesures yi set yi muy laal ndox ak laal ci sel yi loolu suñ mbokk yi nga xam ne ñoom lañ ci àndal ci taxaw bi muy muxaddamatul xidma ñi ngi ci taxaw bunt bu nekk def nañ fa ay jumtukaay mbooloo mi macha allahu biir jumaa ji fees na gis ngeen yokk yi tamit mi ngi fees ba parisol yi yu ci bari tàmbali nañ koo firi kilifa yi tamit ñëw nañu noonu it lañ ñu waxee ne ci biir dëkk bi ñu ngi ko ci yaatal ci jàkka yi ak jumaa yi waaye ci biir réew mi kër sëñ Tuubaa yi ak daayira yi ba ci bitim réew ba ci suñu mbokki jullit yi sax eh, yëgaloon nañ leen ko sëriñ bi sàkkoon ñu ànd ceeg ñoom eh, ñu bari fa waxoon nañ ne façon nañ ko yaakaar nañ ne feek ñuy dem buñ sëlmalee tisbaar dinañ gën a am information yi waaye daal li am solo mooy mbooloo mi moom wuyu si nañ ci ni ko sëriñ bi wootee woon Eh, am yaakaar bu baax nag sëriñ bi waxoon ne nañ ci jiital fas tolluwaay yi nga xam ne moo nekk ci réew mi suñu borom ko muy mi tamit nawet bi mu ubbi ko ci jàmm tàggale ko ci jàmm teñ muurloo ko teñ ñaanal ko ñaanal kilifay diine yëpp ñaanal jullit yëpp rek ci àddina bi eh, jàmm akuk dal kon daal loolu mooy bi ci waxtu wi ñu toll bu ñu sëlmalee nag sëñ dina jàng xutba bi eh, bi incha allahu su boobaa ñu def tënk bu mujj ba jërëjeen jëf jërëjëf ulaayika ala hudan min rabbihim wa ulaayika hum sadaqallahu bokki jullit yi fi teew yëpp bokki taalibe yi gannaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant borom Tuubaa di gën a di gën a yeesal sunu taalibe ci moom di ko yeesal di ko di ko seeral ki ko fi nekkal mu Cheikh Ahmadou Mountakha Cheikh Ahmadou taqaa ñoo ngi lay nuyu di la jottali nuyu bokk yu baax yi nga xam ne ñoom nga boole loon ñu seq liggéey bi te ñoom ñëpp kenn ku nekk daf ci la war da ko tàmbalee ci ñi ma àndal liggéey bu alxuraan ji muy sëñ Basiiru Mbàkke bu Cheikh Ahmadou Fadal ak sëñ Basiiru sëñ Abibu sëñ Xaadi Jaxate ngi ñu àndal ñëpp ak waa muqaddamatul xidma ak mboolem di aji si jumaa ji mboolem ñu ko daan limee ak sëriñ Amsatu Mbàkke bi nga xam ni moo jiite woon njàngum xasaayit mi moom sëñ Sohayb noo ngi lay nuyu yow sëriñ bu tedd bi di la xamal ni na nga ko diglee woon bëggee woon ko ni bu ci sun kàttan at àggul itam def nañ ci suñ kem kàttan ba jàpp nañ ni la nga digaloon def nañ ci luñ man bu dee wàllu alxuraan ji jumaa ji li fi teew bari na lool waaye mboolem jumaa yi ci dëkk bi ak daara yi ñu ci baree baree bari nii dëkk bi bindoo àdduna si bindoo ni moo tax ñu baree bari ña nga yem yem fa seen daara ak seen i jumaa waaye ñu ci baree bari jokkoon nañu jokkoon nañu ñi yor liggéey bi xamal leen ni na nga ko diglee ña ngi koy defee foofu ci biir dëkk bi ak ak biti dëkk bi lépp teewul nag fii li fi war a teew lépp teew na fi bu dee wàllu xosaayit yi itam sëriñ xam su defee na ko na nga ko digle woon mboolem kuréel xasaayit yi diggal na leen kenn ku nekk fa nga nekk nga toog fa jàng fa lim yu bare baree bari def def ko ci ndigalu sëriñ bi kon sëriñ bi jàpp nañu def nañ ko ni ñu ni ko diggale woon noo ngi ñaan ci barke borom Touba mi ñu nekk fi wetam la la ci taalibe bi yëpp fasal njabootu sëriñ Touba bi fasal la ko ci bokk jullit yi fasal la ko ci yal na la ko yàlla defal nu fekke ñun ñëpp waaye nu nu itam muy bokki taalibe yi muy njabootu sëriñ tubaa gépp muy bokk julit yépp la nga nu ci fasal ci sa xol te ñëpp ñu xam ko yàlla na yàlla yàlla yàlla na ko yàlla defal ba ba mu kawee sa njort loolu dong lañ ñëwoon nañ ko nañ ko ci mottali di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan nga ñàgg ñoo digal ñu yàgg jëfe seen digal tiir bu yàgg yàgg ci barkab sëriñ tubaa noo ngi sant di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa kon sëriñ bi mu ne ñu bàyyi xel ci bu ñuy génn ci génn bi nañ ko waxe woon te buñ génnee ci bitti yokk yi ñu ne xewal yi ñëw na xew lu door a dem kon ñëpp mën nañoo neggandiku ba lu door a dem bisimilah.